wala julit bi duñ ko mën a tuddee ne julit la lu may dafa fekk ne dafay julli rek képp ku du julli duñ la lim ci julit ñi en tout cas usuliyuuna yi ak ulamaawu sunna ñoom duñ la ca boole boo ca boole sa bopp nag yaa xam waaye moom kenn boolewul la ci ndax yonent bi moo ne al ahdu lazi baynana wa baynahum sala fa man kafar wenn rëdd benn tomb mu jeex takk li nu boo lëkkee daal mooy julli ku ko bàyyi rek yéefar nga bokkatoo imaamu ahmad génne na xadis boobu abu dawud génn na ko yi génne na ko kon wér na mbokk yi ñuy déglu xanaa xamu leen ne am na ci àllaaxira safara wu tàng wu tudd saqara xam nga xeeti safara yi wala bunti safara yi juróom-ñaar lañ jahannama sair xatamatu laza saqara jahim hawiya juróom-ñaar yii la ba ci tudd saqara nag saqar moom ba ko ci tudd kooku ñi du julli fafay seen kër alquran mënu ko waxee noonu nee na bu ñu leen seenee ñuy dugg saqar dafa ne malaaka mi laggal nga laaj ñee mu ñoom sawara tàng wi tudd sàqar lu leen fi indi lañ tontu ñu naa ñun kat ba nekkee ci àddina daw nu julli maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin lii ci ki du nangoo julli te fasut ne julli lu war la amma ki nga xam ne nangu naa julli waaye du ko def nangu na ne julli farata la waaye du ko def kooku jullit bu dëng la su tuubut ci loolu it ak payam ëllëg moo di safara safara wu tudd xëy ki bañ julli te xam ne war na am na am na safara woo xam ne su ci duggee lañ koy nàndal moo tudd xëyu xëyu ulama wu luga ne nañ am mbugal la ñu ne tur la ci turu safara yi waaye gaa yi ne nañ déedéet xayu mooy naar bee di lëkk di bi bu ca tegee yàpp wu tooy wi balaa muy ñor ndox ma cay siitee di toq ca suuf mooma ay nit yuñ teg ci safara mel ni dañ leen di dibi ndox di jóge ci ñoom di toq dañ koy taatan loola moo di xëy yu moom la ñuy nandal ñooñale balaa ñu dugg safara alquran ne fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabau shahwaat fa sawfa yalqawna xayyan danañu dugg xëy kooku aaya cinquante neuf la Mariam la ah gaañ yi wax jii kat moom du waxu étudiant wax jii kat moom wax ju njëkk ji rek la ku indi leneen yaa indi lu bees kat lii mooy lu njëkk la de dara beesu ci lépp mu ngi fi woon ñëpp gisoon nañ ko ñëpp xamoon nañ ko jàngkat yëpp xamoon nañ loolu am na ki nga xam ne nag moom dafay sàgganee julli li ko li tax muy sàgganee julli mooy jëfe àddina ma nga ca demye ba ma nga ca yoote ba mu nga ca quartier ba mu nga ca cas ba yore bigam rek du rëdd dëkk far naan ñaarama ko teree jàpp hee benn bii rek bu dikkoon nangam nangam ba julli gi jot di julli naan doxal de kii naan tipp jaaral fii jaaral fii nekk ci garam place ya kooku nga xam ne loolu rek ko teree julli moom ba waxtoo wéy ah kooku de du dem rey waaye nag yàlla tëkku na ko ci mbugal ci àllaaxira nee na fa waylun lil musalliin ladina hum an salaatihim sahuun ñi soxlawoo leneen walis julli ñi nga xam ne bu ñu doon julli sax day fekk seen xolam ca euh, euh, damee baag carte gaag wure waag cert baag karab karab ya ñooña euh, waylun moo leen di xaar waaye am na ñoo xam ne nag julli dara mënul dox seen digg ak julli ñi nga xam ne seen alal jaay ak jënd ak dajale wut ca nekkoon ba julli ga wéy ñooñu mbugal lañ leen tëkku ñi nga xam ne lijjanti seen mbiram doom ak njaboot ga ca lañ ne ba far julli ga wéy te julli wuñu ah ñooñu it am na lu leen yàlla tëkkoo bim ni yaa ayyuha alladina amanu laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dikrillah wa man yafaal dalik fa ulaayika humul xaasiruun ku def lii njaboot doom alal dox sa digg ak julli mu ne ëllëg yaa perte xam nga ku perte mooy kanam mooy kuñ falas xam nga kuñ falas mooy kanam mooy kuñ xam nga kuñ saisir mooy kanam mooy ku dem ba ca kanam yàlla yaakaar ne dañ lay fay fekk ndeke amoo fa dara la nga amoon ci ay jaamu yàlla ak néew tooñoon nga ñeneen ñu fay leen ko rekk nga toog mbokk yi nu bokk yàlla xataa kii sàgganee julli ba waxtu wa wéy walla muy boole ñaari julli te ngant taxut bàkkaar bu mag tooga toog ba mu rekk mu boole ko bàkkaar bu mag la am ku boole ñaari julli te amuloo benn ngant kooku dugg nga benn dugg ci dugg ci bàkkaaru bàkkaar yu mag yi tooga tooga toog ba julli yooyu nga boole ñaari julli yi def nga bàkkaar bu rëy kooku ku yàlla yónni moo ko wax nee na man jamaa bayna salaatayn min gayri udrin faqad ataa baaban min abwaabi alkabair Tirmisi génn na ko xaakim génn na ko daaru qutni génn na ko mbokk yi ki bàyyi julli te tey ko nag amul lenn lu ko waral amul benn ngant amul benn ngant bu sharia nangu kooka xam nga julli yam doon julleeg la mu defoon ca gannaaw yépp ba yaakaar ne dañ koo comptabiliser war ko koo fay ëllëg dañ koy mabbaale la baaxoon ca gannaaw dañ koy mabbaale yàq ko moo tax yonent bi di wax ni man tarak salaata mutaammidan faqad xabata amaluhu kooku imaamu ahmad moo ko génne wax na ba tey ci xadis bu gudd boo xam ne ibnu xujar moo ko génne ci kitaabu zawajir nee xarkanam ya ñuy njëkk lëndëmal yowmal qiyaam mooy xarkanam yi ña daan bay julli nee na am na wenn xur ci safara wu tudd ay jaan yu rëy rëy ñoo ca dëkk jaan bu ci nekk mu ngi toll nii doqu gëlëm nee na guddaayam doxu weer la nee na jaan ja luy liggéeyam di matt rekk ki daan bay julli da koy matt dangar ja di tasaaroo ci yaramam loola dana ko ko def juróom ñaar fukki at aw yaramam door a ñépp tikku nag ñu door a seet nu ñuy def ni la ko yent bi waxee innahu awalu ma eh, eh, yasawwadu yowma alqiyamati wujuha wujuha tariki sala wa inna fi jahannama wadiyan yuqaalu lahu lam-lam fii xayaatun kullu xayatin bi saxni raqabati albair tuuluha masiratu shahrin talsaa taarika salaa fa yagli sammuha fi jismihi sabiina sana suma yataxarra lahmu ibn alxujar alqastalaani nettali na ci fi nafsi almasdar ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax benn bis saaba yi ne waaw ndax xam ngeen ku texee di ñu ne ah déedéet yow mi yàlla yónni xanaa yaa xam ku texee di mu ne mooy ku julli dafa ne atadruuna man ishaqi qaalu waman huwa ya rasulallah qaal taariku sala kooku texee di mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi kon bàyyi julli ak rëccu lay indi ëllëg yowmal qiyaam ci waxtu woo xam ne rëccu na gis nga sukkuraat sax ku ca nekk de sa xel daf naan ngiij ñu bàyyi ko woon rek mu rëccoon rek mu rëccoon rek ba julli ñaari rakkaa sax yóbbaale ko waaye ulamaul mazahibul arbaa ñeenti ngér yi nga xam ne ñu ca nekk lañ tuddee ahlu sunna ahlu sunna wal jamaa mooy ñi topp ñeenti ngéer yi ñoom ñëpp atteel nañ ku bay julli ay atte maa ngi wax ku ne lu mu ca wax ma tàmbali ci ki ci mag ay at muy imaam abu xanifata nuumaan nuumaan def ne abu xanifa daf ne inna tarika salaati yudrabu xata yasilu minhu dam aw yusalli suma yuxbasu ila an yusalli abu xanifata nee na ku bañ du julli nañ ko jàpp ji ko caw ba deret génn ci yaramam wala ba mu nangoo julli nañ ko tëj ba mu nangoo julli imam malik mi ci topp radiallahu anhu nee na man taraka salaata kasalan la juxdan li wujubiha qutila xaddan la kufran bi sayf suma tujra alayhi baada qatlihi axkaamu almuslimin min gaslin wa salaatin alayhi wa dafni wal irsi malik ibnu anas radiallahu anhu nee na ku bàyyi julli te tayal a tax weddi woo sax ne war na kooku nañ ko jàpp ñu rey ko rey ko boo xam ne yoon a ko rey te duñ wax ne yéefarloo nañ ko jaasi lañ koy reyee buñ ko reyee ak jaasi ba pare nag lépp lu ñu defal jullit sang geeg jullee geeg suul geeg ñu war koo doona nañ ko ko def imaam muhammad ibn idris imaamu shafii moom dafa wax ne man taraka salaata kasalan laa juxdan li wujubiha qutila xaddan laa kufran bi sayf walaw salaatan waxidatan bi charti ixraajiha an waqtiha daruri al imaamu shafii daf ne ku bàyyi julli te dara taxul lu mooy tayal ak ñàkk solo rek weddiwul ne war na nañ ko rey ak jaasi doonte genn julli dong la bàyyi nag bu fekkee ne bàyyi na ko ba waxtu wéy ba dem ca daruri imaam ahmad imaamul muhaddisin ilimaani xadis kat yépp ahmad ibnu hambal dafay wax ne yuqtalu bi salaatin waaxida kufran bi sharti ixraaji an waqtiha daruri nañ ko rey bu baxee génn julli su boobaa nañ àtte ne la moo tax ñu rey ko imaam ahmad loolu la wax léegi nag kon ma ñëw ci nu nuy أيها الإخوة المؤمنون فمن المهم أن نعرفه وأن الصلاة هذه مع أهميتها وعلو شأنها فلا تصح إلا إذا كان موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokk yi li mat a xam moo di ne julli mii ak li muy am solo li mbiram di kowe genn du ci du ci jub duñ ci nangu genn lu may def dëppoo ak na yonent bi doon jullee lii Aïcha moo wax ne anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal man amila amalan laysa minhu amruna fa waraddun ay mardudun yonent bi nee ne képp ku jëf-jëfi topp yàlla te teguwut ci nin wax ñun ñu yàlla yónni sa jëf jooju delloo nañ la ko kenn du ko nangu li Buxaari moo ko génne kon dana baax julli war a mën a dëppoo ak melokaan wi yonent bi daan jullee sallallahu alayhi wa sallam te melokaan woowu agsi ci ñun ci ay yoon yoo xam ne yu wér la Malik ibnul Xuwayris dafay wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim wax mooy sallu kama raaytumuni usalli julle leen ni ngeen may gisee mani julle loola kayfiya la al imaamu al ufi rahmatullahi moom dafa wax ci téeréem ne ku julli julli gu rafet te xàmmewoo farata ja lu cay sunna lu cay mandóob sa julli ga baaxut dafa jum rek nag yal na ko yàlla gërëm ndax alim bu mag la li ko juumloo mooy yent bi waxut loolu yent bi daf ne sallu kama raaytumuni usalli kon alkayfiya la ni ngeen ma gisee ma ni di jullee gisuleen ma ñi ma gisoon nettali ni may jullee julle leen ni mu wax kon kayfiye bala la kayfiye bi kay boo ko defee na ko it doon defee rek boo xamul luy farata ak sunnit mu nangu ndax laajuñ ñu foofu maarifa an il faraidi wa sunani wal mandubaat bal nahnu masuluun an il kayfiya as saxiixa mbokk yi jigéen xam gi ñu xam ne julli am na solo moo tax duñ tëb tëb rek julli foog ñu taxawal ko tax foog ñu taxawal julli ah duñ ko làmbatu itam ah bilaal yi nag ngeen may dégluwaale te baal ma noddkat yi ngeen dégluwaale ma te baal ma ak jullikat yi ku ci nekk rek na nga dégg fi yonent bi jaar ci liqaam ak nodd ak julli ndax yaa ngi koy defam déet nga corriger sa bopp alixwatu benn waay daf ne noddu ngeen wax ci jàkk yi nodd yi dafa bari yàq liqaam yi dafa bari yàq ñu ngi ko wax nga dëgg wante ñun ay tuubeen lan nag suñul kay nga am ci mu weex ngay sant yàlla rek ñun kay ko am ci ñun loolu sant yàlla waaye nag nan góor góorlu nag nan góor góorlu ba mu jaar ci yoon bi yitteel gi julli yitteel tax na duñ ko duñ tëb tëb rek def ko dañ koy waajal teewlu ko loolu nag la ñuy tuddee liqaam buñ jógee nag ba ñu bëreet ñu ne julli gi jot na dañ koy waajal nag liqaam di wax ay baat yoo xam ne dafay digle julli su ko defee ñëpp dal di ko bàyyi xel liqaam moomu nag sunna la bu dëgër waaye mu ngi ci bitti julli gi ay baatam rot na jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa ngi koy nettali yonent bi ne Bilaal ni ngay liqaame allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaaxi qad qaamati salaatu qad qaamati salaatu allahu akbaru allahu akbaru laa ilaaha illa allah hadihi hiya alkayfiya saxiixa lil iqaama ñetti observation rek laa ciy defal liqaamkat yi bi ci jëkk mooy dañuy bind ashhadu anna muhammadan rasulullahi loolu la ñu bind kenn du ko jàngee noonu da naan muhammadara jël daal gi li da xam ko ci raa loolu la beneen bi moo di ne hayya ala salaati dañ koy wax hayya ala alfalaaxi xaagi na génn qad qaamati salaatu dañ koy rafaa duñ wax ti loola observation la am na yeneen riwaaye nag yoo xam ne bu ñu ñëwee ci qad qaamatu salaatu benn yoon lañ koy wax wante wax ko ñaari yoon moo gën moo gën a wér itam wal awalu wal afdalu wal asax qad qaamatu salaatu ñaari yoon loolaa gën a wér loolu la xadis yi waxe boo defee benn nag mu mu wér mu baax waaye la léegi na wér wa hakada kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yamuruna yamuru an tuqaama salaatu nii la yonent bi daan diglee ñu ni ñu ni taxawalee julli suñ ko defee ba pare nag nga gis nag yonent bi digle na nañu yemale sàppe yi Euh, daanañu biral ni yemale sàppe lu baax la sàppe su yemut daana ci joxe ay tëkku naan bu ngeen yemut seeni xol duñ yem bu ngeen wuutee seeni xol dana wuutee na sàppe yi yem daana wax la te su tasuwanna sufufa aw la yatmisanna allahu ala alwujuh daana wax ni laa taxtalifu fa taxtalifu qulubukum ni la yenent bi daan diglee ñuy yemale ay sàppe bu sàppe yemee nag mu daldi di taxawal julli su ko defee dojar yi yemoo mbëgg yi dal di tolloo mu dal di ne liinoo fii ay di ixwaanikum na ngeen nooyalante ba fu nit xëj mu man faa ne wa kaana yaqul sallallahu man wasala safan wasalahu llah wa man qataa safan qataahu llah ku jokk sappe yàlla jokk la ku ko dëgg yàlla jo dëgg la abu abu dawud moo ko solo léegi mu dugg ci armal julli al ihram ci bi alayhi salaatu wasalaam bu xarmalal julli ba ne allahu baat boobu day wax ne na sa xel fiix ci lépp lu duxul yàlla na nga yëkkati sa ñaari yoxo bu mu tolloog say wagg wala sa ñaari nopp nga éy na ne dangay julli nga waxaale foofa allahu akbar nga biral allahu akbar ja ba déggal ko sa bopp ak ki nekk ci sa wet booy imaam na la nit ñi dégg xataa buy julli yàlla itam kàbbar bi nañ ko dégg yenent bi daana kàbbar noonu ma la waxee waaye mësul am ko koy jottali malheureusement ñun ay ceddu lañ ñaar sax bu ñuy julli kenn ki di jottali xam naa doon foog ne bu ca amut du baax fekk déedéet day biddaa rek bu naan gis xam nga jottali moom ni ko la waxee la buñ jotul rek jottali bu ca nit ñi jotut waaye ilimaan buy julli benn sàppi rek ñaari sàppi bu kàbbaree ñëpp dégg mu jottali lu mu ci doon xanaa bu jàkk ji feesoon ba am ñu ne ci bitti kay la koy aajo waaye bu kenn wut ci bitti ñëpp ci biir bu kàbbaree ñu dégg jottali bokkut loolu ñun ñoo ko sos boo demee ci xalil ne na dagan na kuy jottali bu nit ñi du dégg kàbbaru imam demal ci xalil loolu mooy kàbbar bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam amutoon ku koy jottali lu mooy bu nit ñi baree ba duñ dégg abdulahi ibnu omar nee na raaytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam iza staftaxa salaata rafa yaddi xatta tuxaawi man nee na maa gis man ibnu omar yonent bi buy kàbbar da yëkkati ay yoxoom ba mu tolloog ay waggam mu ne maa ko gisit bu rukkoo ba euh, euh, bu bëggee rukkoo itam maa ko gis mu yëkkati ay yoxoom dal di kàbbar loolu mu ngi lay woon xabdu ndax ku xabdu du du rafu te xabdu rafu mooy ànd moo tax ibnu omar ne raaytuhu rafa raaytu rafa yaday xatta tuxaasibat kibayhi wa ida arada an yarka mu door a sànni loxo ya nag ma dal di wax man maa ci yokk ni soo kabaree ak xabdul mooy sunna mu la yent bi doon def ah boo yoree itam sa jullitee du yàqu wante boo naree xabdu nag loxo ndeyjoor bii mooy tegu ci bu càmmoñ bi nga téye ci fii xasab bi yem ci takku njare yi ci loxol càmmoñ bi nga teg ko ci sa dënn loolu sunna la yonent bi noonu la daan def saaba yi ci gannaawam noonu la daan def ba léegi saaba yi bi bi fi yonent bi jógee nga xam ne bay nañu Abdullah ibn Omar mu nekk euh, xalifa nekk euh, imam ca Madina noonu lañ ko gisoon muy def moom ba mu fi jógee Naafi noonu la ko gisee ci moom mu di ko roy Naafi' ba mu fi jógee imaamu Malik ba mu fa nekkee eh, imaam noonu lañ ko gisee mu di ko def noonu lañ ko royante ba ci ilimaan ja fa nekk tey noonu lañ doon kabbaree noonu lañ doon xabdoo ilaa yawmi diin zaraata ne na ibnu abdurahman ne samitu zubairu yaqul saff alqadamayni wa wadu lyadi ala lyadi min assunna sappe yemale ay ndëggu ak teg loxo benn bi ci benn bi ci julli nee na loolu day bokk na ci sunna kon xabdoo ngoog rot na ci ñaar fukki xadis yépp nag yu wér la waaye yoor loxo nag benn xadis bu bu ràgg sax rotu ci ki ñu doon jàngal ne na woon de kooku ci indil benn bu wérul rek benn xadis ci yor loxo kenn du la ko indil wax rek ki fi nekk ak aadaat gisoon nañ lii rek waaye terewut nag comme sunna la boo ko bàyyee sa julli du yàqu te bokkut ci sunna yi ñu tënkane soo ko bàyyee day waral sa jot xanaa loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam bu kàbbara kàbbara xarmal daanañ ko gis mu noppi tuuti ñu nag mm, bariwuñ koo def xëy na ñàkk xam gi la wala tuubeen gi la ndax ñun ku ci nekk rek danga bëgg di royee mbir ci kenn rek boo boo jàngee sax boo jàngee sax la nga jàngoon da koy teg fee ne ah dëkk sàngam di gisuma fi nangam gisu gisuma diw di def nangam fekk nag gisuma diw di def nangam moom kenn rek ci walaabal mooy yonent bi waaye ku dul moom moom mën ngaa def lu defu wut mën ngaa ba lu lu lu defu moom nag moom du def lu defu wut ndax yàlla koy digal su bëggee ki yàlla ne ko du noonu defal nii yonent bu kàbbaral kàbbaru xarmal da nga dégg mu ne tekk tuuti saxaaba yi ne bi abi anta wa ummi ya ko iskaatuka bayna takbiri wal qiraa ma taqul mooy yenent bi ñu ngi gën ci suñ bàyyi ak suñu ndey moo boo kàbbaree ne tekk loo fiy wax mu ne dama naa allahuma baid bayni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 gannaaw bu ngeen dégg ma ma wax ca kaw alhamdulilahi rabbil alamin wéy ngeen yaakaar ne fa laa tàmbalee gannaaw goolu ca topp jàng fatiha maa ngi lay nettali ni yent bi jullee pas à pas rek moom lay topp benn benn rek jàng fatiha wax naa ne wute bu néew ci nekk mooy tàmbalee bisimilah rahmaani rahim biral ko wala yelu ko waaye bàkko moom kenn du ko def bisimilah rahmaani rahim kenn du ko bay wute bi kay mën ci biral ko ak yelu ko loolu rek la lépp loo ci defit nag dagat na li gën nag mooy nga biral alhamdulillahi wax bismillah arrahmani irrahimi ci suuf abu hurayrata nee na salaytu xalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa fataxa bilhamdala wa xalfa abi bakrin wa omar kadalik loolu buxaari moo ko génne Abu Hurayrata mooy nettali gis naa moom bokkul ak euh, dégg na nee na man de maa julli ci gannaaw yonent bi dégg ko mu ni kàbbar tàmbalee ci kaw alhamdulillahi rabbil alamin mu ne waaye julli naa ci gannaaw Abubakar ni Sadiq ak Omar ibn al-Khattab ñu def loolu wax ji Buxaari yi nii la ko indee amma tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim ci biral wax naa ne mu ngi toll ci laa baasa bi bonul ndax Abu Hurayra indi na beneen xadis dal di jàng bismillahi rahmaani rahim Abu Hurayra julli na ne kaay leen ma wan leen ni ñuy jullee mu julli kabbar wax ca kaw bismillahi rahmaani rahim xëy na da ko fàtte xëy na fàttewu ko waaye wax na ca kaw ba nit ñi dégg ko ba mu paree lu mu wax mu ne sama julli gii moo gën a nuru julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam inni la ashbahakum salaatan bi rasulillah kooku xaakim moo ko génnee ca mustadrak ibnu xusayma te génne na ko ibnu xabbaan daaru qutni ak bayhaqi jàng fàtte nag mbokk yi lu war la ci julli gu nekk lu war la ci julli gu nekk waaye lu war la ci raka bu nekk même buñ la jiitee dangay jàng fatiha ci raka bu nekk buy jullig biral baax na buy jullig yelu ñu yelu ko yow nag buñ la jiitee fatiha da koy yelu tegtal bi mooy li yonent bi wax naan la salaata liman lam yaqra il fatihata ku jàngut fatiha amuloo julli kooku Buxaari moo ko génne eh, koo xam ne nag julli eh, jàng faatiha raw na ko ca rakkaa ba maanaam dangaa ñëw fekk ilimaan rukkoo na nga kabar rukkoo fekk ko ci ah te ñu wax ne rakk boobu am nga ko te ñu wax ne rakk boo jàngul faatiha eh, amuloo ko kon kooku nag luy luy luy mbiram imaam Malik ne qawlul imaami qawlukum xawlul imaam yi xawlukum kii jàng fàttee faat fekk ñu rukkoo mu rukkoo ànd ca jot na rakk ba mu ne ilimaan gàddul na ko ko jàngal na ko ko lii la Maalik wax ci Muwatta ñu ñëw ci amiin ci julli amiin benn baat la bokkut ci fàttee ga wante baat buñ barkeel la ndax mooy tampon nguur gi buur bu bindee da koy tamponné ku toll ni yàlla it bu mu indee saaru toll ni fatiha daf koo tamponné mooy amin wa kullu saaxibi mulkin ida kataba cheyan muhimman fa innahu sa yuxtimuhu wa amin huwa xatmu llahi taala wa ismu fiili amin li muy tekki mooy yàlla yan na nga ñu nangul dégg naa ñi bokk la ñun diini sax dañuy wax amin kon ci yàlla yi la bokk amin dañ koy wax bu fatiha jeexee yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne ida qaala wala dallin qaala amin wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ida qaala wala dallin qaala amin rafian biha sawtahu wa kaana ashaabuhu yaqulunaha maahu bilisanin waxid rafiina aswaatahum xatta inna lilmasjidi la rajjatan wala yujadu fi salaati shay'un yaquluhu almamumu maa alimaami illa amin baad alfatiha yonent bi alayhi salaatu salaam bu waxal wala dallin daf naan amin moom mi jiitee yëkkati baatam mbooloo mi waxaale amin ñu àndale ko xadis bi ne ba dañuy dégg jàkk ji di ba léegi boo demee Madina wala Makka bu ñu amin sax petax dañuy naaw mu ne amul lenn ci julli lu maamam di waxandoo rek ilimaan lu may amiin moo tax yonent bi ne ida amana al imaamu fa aminu fa inna man waafaqa taaminu jàng nañ fatiha jàng nañ aw saar ruko moo ci des ruko mooy nga lemu dal di lunk rek téye ci say óom gannaaw boo yëkkati sa ñaari loxo ne allahu akbar nga teg tenq yi ci sa óom yi baaraam yi jublu qibla nga sabal fa ñetti yoon juróomi yoon fukki yoon fukk ak benn subhaana rabbiyal aala wala subhaana rabbiyal azimu bi xamdi ilimaan na def lu bari ndax ñi ci gannaaw ndax bu ilimaan defee juróom-ñaar day fekk maamoom ci juróom lay toll moo taxit it bu la ilimaan rawee it du wàññi dara waaye bu ko raw kenn kuy julli nag ah na def lu ko neex rek gannaaw ba nga yëkkati ku juru ko yëkkati sa ñaari loxo ba mu tolloog say wagg bu fekkee yaa jiite wala kenn kuy julli la nga ne sami allahu liman hamida yàlla dégg na ñu ko sant nga ne tekk tuuti rek door a rotti waaye bu ne sama loo leen xamante dal di wéy déedéet da nga naan sami allahu liman xamida ne tekk tuuti door a rotti nag sujjóot boole koog allahu akbar ji boo sujjóotee tegal sa jëbi ak sa bakkan bi sa ñaari tënk yi sa ñaari cati tànk ya na ko teg ci suuf yonent bi ne umirtu an asjuda ala sabati azumin digal nañu ma sujjóot ak juróom ñaari yax jëbi benn ñaari loxo yi ñett ñaari oom yi juróom ñaari petit tànk yi juróom-ñaar xadis bi muttafaqun alayhi la na nga sabal ci rukoo wax fa subhaana rabbil aala wala lu mel ni noonu yonent bi ne na tere nañ ma ma jàng alquran ci sujud wala ci rukoo kon sabal rek la wala ñaan rukoo fa azimu fihi rabbu wa ama sujud fajtahidu fi duaa sujud mën nga cee ñaan waaye alquran moom kenn di ko jàng ci rukoo sujud fa qamilun an yustajaaba lakum wa kaana asxaabu yasaluuna allah fi sujudihim kulla shay xatta milxal al eh, ajjin gannaaw ga nga yëkkati ko ci sujud boo yëkkati ko ci sujud ba da ngay jékki dal di yemoon ak ñaan yërmande ñaan njëggal ibnu abbas nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam ñaari sujjóot yi da ci daan wax allahuma axfir lii warxam nii wajbur nii wahdi nii warzuq nii ak lu mel ni ki noonu tirmisi nee na abu ak abu daawud mën nga wax wa aafi nii ci palaasu wajbur nii gannaaw bi du sujjóotaat yoonu ñaareel wu mel ni wu jëkk wa waaye fokk nag mu nekk ci melokaan wu ñu xam booy sujjóot cati loxo yi na sëppee si cati tànk yi na sëppee bul wax ne rek njool laa sama wet gudd na nga gappari ko rek sujjóote noonu biir bi tegu ci ci ci ci yi déedéet bu ko gaawal itam ba mel nii euh, tucc tucc googu mu des nag ñaari mbir rek balaa maa taaya suñuy rot yi di sujjóot am na ñoo xam ne dañu digle ne da ngay jiital say óom ba mu ne groupe nga door a sujjóot loolu aw melokaan la waaye malik yee ñoom dañ ne jiitalal sa yoxo sëpp ko tànk yi dóor a njëw sooy jógit am nañu ne na loxo yi njëkk jóg tànk yi mujj jóg rek malik yee ñoom dañ ne déeréet booy jóg na oom yi jóg nga ne yong daldi sëpp say yoxo dóor a jóg mu ne loolu bu amut soo màgg tee wala nga feebar wala nga néew doole boo ko defee rek daanu am na ñoo xam ne dañ yaakaar nag ne ci la bokk ba boo ko defut mu yàqu déedéet ay riwaayaat la rek waaye maalikee ñoom dañ ne sopp nañ sabku yedin wadaan wa fi rafii rukub nee na bu ñuy sujjooti loxo yay njëkk sëppee suñuy jóg oom yay njëkk jóg lii la maalikee wax kon nag léegi sujjóot na li lan moo ñu desee am na lu ñuy tuddee jalsatu istiraaxa maliki xamuñu ko maanaa sujjóot ba pare war a jóg jëm ci kaw toog fa tuuti door a jóg am na ñu ko nangu yàqut ci julli gi dara waaye maliki du ñu ko def muy jalsatu istiraaxa jalsa moom ndax ulama yu sunna ak maliki ñoom ñu ngi koy def rek ci ñaari raka waaye sujjóot ñaari sujjóot war a jóg fekk yaa ngi ci rakku ñetteel wala yaa ngi ci e, rakk bu jëkk rek nga toog tuuti muy jalsatu istiraaxa am na riwaayaat yu ko indi waaye maalikee duñ ko def kon boo ko defee yàquwut boo jullee ba am ñaari raka wala nga jeexal julli gën a nga toog taaya bu fekkee taaya digg la li ñu bëgg mooy na toog ci sa tànku càmmoñ samp sa tànku ndeyjoor nga samp ko biir baaraamu dëy ya dal di féeteeg suuf baaraam ya dal di jublu xibla tànk ba sampee ndem gànkuloo ndem sa tànk mën na ko ndem kekkewut ba nga ragal ko loolu yëpp dagat na taaye ju mujj ji nag moom itam dañoo bëgg sa njëkkeekaay li tegu ci suuf sa ñaari tànk yi féete la ci wàllu ndeyjoor na nga samp ba tànku ndeyjoor ba biir baaraamu dëya jublu ca suuf eh, baaraam ya jublu xibla nga samp tànku ndeyjoor ndem mën nga ko looloy melokaan wi gën a rafet am na ñuy boole tànk yépp rek toog ci kawam waaye ñépp mënuñu ko loolu it gisiinu yeneen ngir yëla ba tey bonut waaye Maalik yi ñoom nii lañu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu toogaal ngir taaya ci julli yépp nag euh, daawul toog ci bu mujj bi ci tànku càmmoñ bi da koy féetale ndeyjoor bu fekkee nag ci taaya digg la mën na toog ci tànku càmmoñ bi waaye bu mujj bi njëkke kaay lay féete ci suuf tànk yépp féete ci wàllu ndeyjoor mu samp tànku ndeyjoor bi biir baaraam yi féeteeg suuf jublu xibla mu door a taaya taaya nag ni ngeen ko xamee woon rek la attaxiyaatu lillaahi zakkiyaatu lillaahi ila axiri dafa gudd nag yemut fenn am na ñu ci mën lu bari am ñu ci mën tuuti li nga ci man daal danga koy xaaj taaya ju digg nga yem ci saalixiin taaya ju mujj nga yokk ci suluf bu fekkee lu gàtte nga man boo mënee lu gudd nag mën nga dem ba ca kanam ci bu njëkk bu mujj nga dem ca lu baree bare ñu door a sëlmal nag pour génn ci julli ga pour génn ci julli gi da naan asalaamu aleykum wa doo ko doo ko dog gis naa ñu bari dañ naan asalaamu aleykum ne teg door a wa bokkut da koy boole rek asalaamu aleykum wa rahmatullah dafa waaxida jahran boo ne asalaamu aleykum ci kanam bi ngay wax wa rahmatullahi na fekk geesu nga ci ndeyjoor tuuti nga waxaat asalaamualeykum wa rahmatullahi geesu ci càmmoñ nii la yonent bi daan def waaye ibnu xujar nee na salaytu ma annabi sallallahu alayhi wa sallam fa kaana yusallimu aleykum wa wa an shimalihi asalaamu aleykum wa rahmatullah xadis Abu Dawud moo ko gannaaw ga nag bu sëlmal xasee am dañuy seet lépp mat na kon jeex na waaye bu fekkee am na lu manqué am na fu ñu yokkoon te waruñ faa yokk bu ñu sëlmalee nañ sujjóot ni ñu toogee rek nañu sëpp jëbi toogaat sëppaat ko toogaat tayewaat sëlmal loolu la ñuy tuddee baada salaam muy gannaaw sëlmal nu seetit ba xam ndax julli gi yokkun ci dara kon noonu la ñu seetit ba xam ndax wàññi wunu ci dara suñ wàññee ci julli gi dara kon buñ taayaa ba sëlmal des ca nan sujjóot toogaat sujjóotaat toogaat door a sëlmalaat loola moo di qabla salaam suñu yokkee nag te wàññi muy ñaari mbir kon qabla moo gën a diis moom daal la ñuy def gannaaw sëlmal nag lan la xam nga julli gi ci sëlmal rek la yem bu la neexee dem sa yoon dara desewu la lu mooy ay zikkar ak i baqiyaat saalihaat am na ñoo xam ne bu ñu sëlmalee dañuy ñaan ñaan yu bari ñaan yëpp yonent bi wax na yooyu yooyu yëpp waaye farataaloo ci benn amu ci lenn nit lu ñu taqale ne foog ñu def ko ci mbooloo sëlmal daal la ñuy defandoor mbooloo fa la yem la ca des nag kum neex rek lu la neex nga def tasaba nga ca tasab ñu ngi ko tuddee ñenn ñi baqiyatu salihat eh, ñenn ñaa ngi ca ay yeneen ñaan ñu jàng kursi yi eh, ñi jàng allahuma anta salaamu ñi jàng leneen ñi jàng leneen yooyu yëpp nag moom bokk ci julli gi gannaaw julli gi la bu la neexee def bu la neexee doo def bu la neexee di ko def tey dem sa yoon jullee nga yem ci asalaamaaleykum léegi nag bu ñu asalaamaaleykum boo demee ci ñi xam sunna ñëpp ne bërit ku nekk jëli dàllam buy fii nag ñu moom de waaye du def sax baaqiya salaat mais ku la wax ne bu koy def dañuy toog kenn waxut la ko boo sëlma ne bu la di dem di ko def ci yoon way dem bu la ko di du farat sunna kenn tegul la ko baqiya saalihaat yonent bi nee na gis nañ ko ne bu sëlmalee daana wax astaghfirullah ñetti yoon daanañ ko gis gisit muy wax subhanallah ñett fukk ak ñett alhamdulillah ñett fukk ak ñett mooy li ngay fanweer ak ñett fanweer moom xam nga duwul tur du wolof mooy fanweer yi rek lañ bëgg a wax te fanweer yi moom léeg-léeg mu nekk fanweer ak benn mu nekk ñaar fukk ak juróom-ñeent moo tax du wolof yu piire ñett fukk ak ñett rek la waaye fanweer yi fanweer moom mën naa nekk euh, trente mën naa nekk trente et un vingt neuf ilaa axiri ngoo kon mën na ko manqué kon nag subhanallah ñett fukk ak ñett walhamdulillahi ñett fukk ak ñett wallahu akbar ñett fukk ak ñett yetti yetti ñett fukk ak ñett juróom-ñeent fukk la ak juróom-ñeent téeméer bu manqué benn mooy adadu asmaillahi alxusna bu la neexee nga mottali ko téeméer ci laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulku wa alhamd wa ala kulli cheyin qadir ñaan ya cay tegoog ya ngi nit ñay def nag yu bari la kee day bind ci kanamam fóon ko kee rëdd ci ndeyjoor ak càmmoñ kee def loolu nag yooyu yëpp nag yaa xam rek waaye bokkul ku nekk lu muy def rek nag ñee nga raay seen bopp ñi raay seen ab dënn seen ak wet ñu rëdd fële ñi bind fële ñu nangam nangam loolu moom say mbir la julli moom jeex na léegi yaay seet yi ngay def nga di ko def rek julli moom bokkatu jeex na tàkk wa hakada ayyuha almuminuun nii laa leen toxalee julli tisbaar bi daanaka jege si na ndax benn waxtu romb na te am ngeen ay question te am ngeen jusul muhim muy affaire u jàkk ji te Ousmane dana ci ñëw léegi waaye wax naa leen référence yi ma ko jëlee ay xaadis yoo xam ne yu wér la maa ngi leen di gërëm ci teew gi di leen gërëm ci dégluwaay bu rafet bi eh, di leen gërëm ci yitte woo xam julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam xanaa xaj Usmaan di wax rek ni ñu ñëw ci xaaj bu mujj bi balaa ñu dem ci laaj yi fi Moustapha dajale moo di ne dañuy def conférence at mu nekk ci jàkk ji pour yelwaanal ko moo tax may ñaan fu waay toll ak nu mu mën a nekk rek xaj Usmaan naa am lu mu génnee def ko ci kon Ousmane nga dem ci loolu balaa ñu dem ci leneen li asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, Alaaji Moussa Gueye ci waxtaan wi barakallahu euh, li nga diggoon yépp ci mbiru julli jox euh, ko kon léegi li nga wax léegi rek ñuy ñaan mbokk yi fi teew yëpp rek kenn ku nekk rek lu mu Alaaji Ousmane Sarr mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaara tey ñaan yàlla defal nu dégg ak topp ci li nga xam ne moom lañ fi doon taatan ci suba ba léegi bala maa ñëw ci laaj yi fi si maa ngi tàmbalee ci sama laajug bopp euh, sëriñ bi comme suñu temu tey moo doonoon julli dafa am lu ma jëndeeku loo xam ne lu yitteel la ci kuy dabe julli ba bëggoon nga laajee ni ci biir damay faral di gis léeg-léeg ku ñu raw ci julli buy dabee si ñëw fekk ñu rukkoo nga gis mu dugg ci jàkk ji waaxu waaxu bu métti soo agsee rek allahu akbar yaa téye oom ya daal ànd te yaakaar naa téye oom dafa war a ànd ak allahu akbar kabaram aramali tamit waroon ko jiitu mu bëgg nga ah, laay ci biir mbokk yi ñu door a dem ci lettre yi waaw kuy dabee julli moom boo ñëwee fekk ñu téye ci oom yi da nga kàbbar kàbbar xarmal door a téye ci say óom beneen kàbbar bi nga bàyyi ci diggante bi muy kàbbaru roti bi loola bu fekkee daf ko fàttee du wàññi dara bu ko xamul nag na ko xam ne boobu it mu ngi fi boobu nag bu ko bàyyee du yàq dara waaye na xam ne mu ngi fi day wàññi ab yoolam kàbbaru xarmal bi na ko def door a kàbbar kàbbari roti téye ci ay óomam am na sax ci fuqaaw yi ñoo xam ne dañ ne boo bañee ñu siggi da ngay boo jubloo gaaya da ngay kàbbar kàbbaraat ruko doxee sëggaay ñëw ci sàppe si pour bañ mu faat la wallahu alam jazakumullahu xeyran <coughs> mbokk mi mu lay nuyu tey ñaan mu ne yàlla dëppalee sa xam-xam ak njubam ñu lay déglu tamit yann yàlla dafa leen dégg ak topp mu ne ndax julli jigéen su fekkee ne yeel ba sanguwul ndax ak julleem dina wér wala déet déedéet jigéen bu jullee ab yeelam nekk ci bitti wala kawaram nekk ci bitti donte ay lëttam sax ñoo fël ba nekk ci bitti walla ndod ndoddam nekk ci bitti wala aw loosamu la dënnam bu paree julli ga yàqu na lakin lada kashfin li sadrin aw shaar aw tarafin tuiidu fi lwaqti almuqar yàqu na fi waxtu wéyut na ko julliwaat su waxtu wéyee nag ah kon baax na jërëjëf kii moom itam gannaaw bu mu la nuyoo mu ne mu ngi lay ñaanal te di la sant te yal na yàlla bàyyi la sa xam-xam ak sam xel mu ne mu ngi tudd Abdoulaye Sarr mu ne li muy laaj mooy li ñu tuddee asalaatu nuuraani yi daal la bëgg a xam ak naka lañ koy jullee dajewuma moom ci téere fiq yi de xam naa yeneen mbir la rek jërëjëf kii mu ngi tudd seex gay mu ne gannaaw bu mu la nuyoo te di la ñaanal mu ngi laaj mu ne dafa gis ñoo xam ne xam naa ñu mel ni ñu sant lii wala ñu sant ñi sow ñii bu waxtu julli jotee daal soo leen waxee ni ñu julli jógal mu julli dafa naan ah yàlla daal xol bu rafet rek lay fay wala loola rek lañ lay tëj la ñu tëj ci say loxo mu ne kon nag moom dafa bëgg a laaj ba xam lan mooy xol bu rafet. dafay wax rek xol bu rafetee borom day julli ndem jullit la. Mhm. ku dul julli moom sa xol du mën a rafetati. kii mu ngi tudd Khalifa Kobar mu ne gannaaw bu mu la nuyoo te di ñaanal di la ndokkeel di la ziyaara mu ne su fekkee ne léegi dañuy julli def sappe sapp si jëkk si fees mu ne ñu war a sof sapp si ñaareel mu ne sapp si ñaareel ana fan lañ koy sose ndax ci pegg bi wala ci digg bi wala fan daal lañ ko war a sose bu fekkee ne yaakaar na ne ñeneen dañuy ñëw te bari fu mu ko sofee rek baax na bu yaakaarutut nag bari ñeneen ñuy ñëw su mënee dem ba ca digg ba fa tolloog mu tàmbalee ko fa moo gën jërëjëf kii mu ngi tudd Kaba Diop nekk tafsir waa Kaba mu ne lan moo tax julli ni reyoon euh, Seydina Xuseyn ci Karbala ak kan moo ko rey ay war la woon rek te Ziyad bi abihi benn doomam moom mooy ki nga xam ne moo ko rey ci complot boo xam ne état amawi yépp ñoo ca bokk ci njiitu Yazid ibnu Muawiya ak Banu Umayyata te it àddina ak xeex ak xëccoo nguur taxoon ñu rey ko wallahu alam jërëjëf kii mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw nuyu mu ne maa ngi lay ñaanal yàlla na yàlla dëppale la ak ak la mu gërëm ci diineem ak mu walla tamit ah, mu gudd mu ne am na nag ñetti laaj mu ne laaj bu njëkk bi mu ne lan mooy atteeb nodd moo di sunna la waaye sunna kifaaya la hmm. bu kenn noddee wàcc na ñu ca des loolu moo di àtteem ci sharia wallahu alam laaju ñaareelam ba tey mu yaaju ci nodd rek mu ne wan jan jamono la ñuy tàmbalee nodd noddal waxtu ba te jotee wala mënees na ko def balaa jot waxtu wu nekk balaa ñu koo noddal ba te jotee ba mu des suba suba rek lañ mën a noddal ci juróom benneelu xaaj bu des ci guddi ga maanaam bu ñuy julli juróom-benni waxtu suba mën nañ tàmbali di ko noddal ci ñeenti waxtu yi ci des nag ba te jotee ba te jotee nag bokkut ak ñun ñun ñu teg ñu teg julli Sénégal ba nga ko xamee ba tey Ndakaaru en particulier tisbaar deux heures et rek lay nekk lu ne dina tox ba mu des loolu loolu li muy tekki mooy waxtu dafa yaatu jot na jot na ci une heure balaa muxtaar mee jeex daanaka quatre heures di bëgg a jot yaatu googu moo tax nag fu neex nit ñi ñu def ko fa kon nag comme mu ngi jot une heure et demie bu la neexoon di ko noddal ci une une heure et demie pour nit ñi mën kaa waajal kon waxtu wu ne bu tëkk malee rek foofa lañ koy noddalee so waaye nag balaa nga noddal foog waxtu yi jot une heure et jotee xam nga ne julli jot na kon ku neex nga nodd suba rek moo moom la ñu sañ noddal ko te waxtu jotagul laajam bi may mujjee mu ne ndax koo xam ne bu nu la rafetal baati arab yi bu nu koo wax mu wér ndax ko dina daggal ci moom mu nodd ah déedéet nodd borom xam-xam yee ko daan def ak ilimaan yi ak ñi topp ci ilimaan yi nga xam ne jàng nañ ba xam baat yi ndax nodd gisuñu fenn ñu koy wax ci weneen làkk même suñ mbokki iranien yi fonk nañ seen làkk wi lool waaye duñ nodd ci seenu làkk de ci arab la ñuy nodd ndax loolu la fekk ji suñu leneen kon nag fokk nit ki jéem a jàng nodd nodd moom xaj bu sava dama diggoon nit ñi sax wax ca gannaaw ga ma yem ca liqaam ga rek waaye moo gën a doy waar moo gën a jafe bul yaakaar ne ñii nodd yépp ñoo mën a nodd il faut mu jàng ko ba man ko su ma taxawoon ci baat yi nga xam ne li ëpp ci noddakat yi dañ koy yàq te fuqaaw yi indi ko dafay bari lool mën naa la ci indil rek euh, lu mel ni euh, muhammadarra mën naa la indil ci xëcc hamza ak allahu allahu mën naa la indil it ashahadu ashahadu baaxut waaye ashahadu te mu bari lool rawatina làkkat yi du du noonu kenn du ñu wax ashadu kenn du ko wax ndax dangay laajte ndax yàlla kenn la am allahu ndax yàlla kenn la danga koy laajte yow amagoo conviction wóoloogoo ko baaxut hayya boo ne hayya ala salaah ha googu ko jàngale hayya ala salaah fa nga jàng waaye boo salaa yem fa mooy kaay leen ci safara si loolu baaxut boo ne hayya alal falaax xaagi na génn waaye boone ne hayya alal falaax mooy kaay leen ci àll bi loolu itam baaxut te ñoom ñaar hayya alal salaa kooku ji shamsiya la hayya alal falaax alji xamariya la moo tax boo ñëwee ci falaax ji dañ koy wax hayya alal falaax am na al waaye salaa amu ko hayya alal salaa déedéet hayya alas alas kooku laam gi kenn du ko laal xam nga yooyu sew sew yooyu boo jàngut du sotti mm-hmm. ñu dégg parce que mën ngaa dégg nit ki wax rek nga yaakaar ne dafa wax ne hayya alal salaa fekk waxu ko alas salaa mm-hmm. kon yooyu yu ma tax xam la nodd daal moom fokk ñu jàng ko ndax xam nga noonu dafa baax te bari ab yool <clears throat> ndax yonent bi nee na woon waa ji booy sàmm sax yow kenn bu waxtu wi jotee na nga nodd ndax sa xar yi ngay sàmm xeer yi koy dégg garab yi suuf si boo noddee lépp lu ko dégg yowmal qiyaam daf lay seedal ne ku gëm yàlla nga te loolu lu baax la kon nodd moomu ni mu baaxee boo koy defar nga fexe ba mën ko ba baat yi nga koy tuddee nii mu waree te waxtu woo xamut boo laajee ñu xam a ngi fi wallahu alam jërëjëf kii dafay laaj mu lan mooy atteeb nit kuy jooy ci biir ak julli laxtar yi daf ne ku ragal yàlla moo koy def nee na baal nañ ko ko ndax euh, ku ragal yàlla rek moo koy def jërëjëf kii Idrissa Mané mu ne maamam boo xam ne euh, jeexalut Faatiha mu ne imaam Jalli rukkoo moom lan la war a def moom maamam mu jeexal ko te dabi imaam xam nga imaam moom mu raw la garaaw yi te nekku ci mm. nga ko la ñuy bañ mm. waaye mu raw la moom lu baax la mm. jeexal ko yi tëru koo fekki ko rek kii muy tudd Seer Gay mu ne ci ban bés la xare Badar amoon ak ban xare moo gën a tar moos ci jullit ji euh, xare yi gën a tar ci jullit ñi mooy Xunayn ba alquran di ko tudd ak Uxud xareb badar nag ci ko koor la woon fukki fan ak juróom-ñaar ci char ramadan ci la xare boobu amoon jërëjëf kii mu ne gannaaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne lu mu lay laaj gannaaw bu mu la ñaanalee ñaan yu bëree bëri mu ne li mu lay laaj mooy ñi nga xam ne bu ñuy julli dañuy xabdu daf cee gis ñaari anam am na koo xam ne bu ne sami allahu liman hamida day yëkkati day tegaat ñaari yoxoom ci dënnam door a sujjóoti door a roti am na koo xam ne bu ne sami Allaahu liman hamidah du euh, du tegaat loxoom day euh, rot rek sujjóoti mu ne ñaari anam ban moo ci gën a wér. ñoom ñëpp baax nañ waaye boo xasee ne sami Allaahu liman hamidah waajal loxo ya yoor leen waajal pour teg ko ci suuf sujjóoti loolu ngay def. Mm. doo fa toogaat di fa di fa xabdu di taxaw. Mm. ndax danga koy jéem a yor rek mu jëm ca suuf. Mm. ndax nga sukkandiku ci pour sujjóot noonu la. abdousillah mu ne li muy laaj mooy nit jigéen ñoo xam ne ci ñoo xam ne ji daa yore borom kër waaju sàggan xam naa waaju sant si la ni moom wala ko sant sàll moo koy gis ci pet ko tasal boo tasee dinaa la tëkk mu ne sëy booba bu ndaw sa tasee mu tëkk ko loola nu muy mel ndax sëy ba dina wér wala déet balaa ñu àgg ci loola ah. ku bon moo ko wax loola mm. bu ko nangoo moom itam ku bon la ñu yem ca bon ga te mën naa tasit mu war ko nag bañ koo takk mu daal di amati meneen mbett waaye nag bu tas xasee am rek moom ba eedowu am moom ku ko takki nag mu dagan jëf jee la bu euh, mu ne dafa am koo xam ne day dox si waxtu julli bu waxtu julli jotee euh, suñ Modou kon bii leetar ko jàppalante ndax dafa yéex a ñëw te dama sant si loolu président loolu mooy li fi jotoon a rot ci ay laaj ñu yem foofu yal na yàlla def ci seen dëkk ak topp lépp ci asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ngeen toog tuuti ba ngeen alaaj bi soose borom dëkk bi dafa am yóbbante boo xam ne dañ ko yónnee ci alaaj Moussa Gueye mu jàng ko asalaamaaleykum mbooloo mi ngeen baal ñàkk dafa am ñu yóbbante boo xam ne bii waa penc bi ci seen bopp ñoo ko yóbbante mu jëm ci Alaaji Moustapha Gueye ñu leen di xamal ne amul benn benn benn yoon conférence boo xam ne bii mos nañ ko fi organiser ñu yëkkati teg ko ci loxo Moustapha Gueye am day dindi ci ñaqam di dindi ci poosam di def ci jumaa ji mosuñoo laaj benn yoon saa yi ko musee laaj conférence moo ñu koy defal te ba nëpp it ay ganam moo leen di añal ñu ngi leen koy seede nag ndax ku xamul xamuloo te am na ñoo xam ne ñii dañuy defee nii daf koy def ngir dara dafa ko ngir dara lu may ngir yàlla yonent bi ñu ngi leen koy seedeel ñeen ñëpp nag alaaji Mustapha yàlla la mën a fay yàlla na yàlla fay. kon euh, di leen ñaanal yàlla te di leen bala xaq kon euh, jotaay bi yëkkati nañu ko nu mu dem waajali julli gi ak añ bi incha allah. bismillahi irrahmani irrahim wa sala allahu wasallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem limaan yeeg jàngalekat yeeg olamaaw yeeg notaabal yeeg ñu ñu woo ñu woy si yépp ci liggéey bi nga xam ne mooy waxtaane suñu mbirum diine te mu julli dafa yitteel yitteel ga mu yitteel xam naa moo tax ndax ñu ko mbës jàngat ci sakkal ci gannaaw Louga le 2 boobu lañ ko njëkk def masoon nañ ko jaarale fii ci jumaa ji le 16 avril 92 na jaar itam ci euh, jàkku Hamdallah Pouwa le 19 janvier 97 kon tey ñu ngi koy delloosi ci jumaa ji ci Caaroy isi ndox ba tey le 2 mai la woon ca sàkkal yàlla def tawfiq nekkaat na le 2 mai ci fii ci Caaroy hmm. kon mu ngi mel ni daanaka ay at a ngi nii yu bari nit ñi di ko laaj xam naa li mu yitteel moo tax euh, li ñuy waxtaanee ci julli nag ak ci conférence bi référence yi ñu ko jëlee mooy yi ma leen nar a wax si mooy fokk ñu indi kon melokaanu julli yonent bi nan la daan jullee pour indi la portele nu yonent bi daan jullee nag référence yi ma ko jëlee mooy masnad limaamu ahmed muwatta bu imaam malik ak uh, risaala imaamu shafii ak abu xanifata nomaan ñii ma tuddal ku ci nekk uh, taalif na ci nan la yonent bi daan julli ñu ngi ko tuddee sifatu salaati nabi xam naa am na ñeneen ñu ci taalif waaye ma takkal la ci loolu rek ci anam ak takk waaye du anam ak jeexal ko imaamu ahmad ibnu hambal ak imaam ibnu alqayim aljuzia ak imaam muhammad ibnu sanusi imaam nasiruddin al albani ak docteur taqiyuddin al hilaali ñi itam ku ci nekk bind na téere tuddee ko melokaanu julli yonent bi alayhi salaatu ñoom nag seen wax pour jàngale ni yonent bi jullee ñoom it seen référence mooy xadis ya rot ca Buxaari ak Muslim Abu Dawud Nasaayi Ibnu Maaja Tirmisi Xaakim ak la Bayhaqi génnee ak Muwatta Ibnu Xabbaan Ibnu Xuzaymata ak yeneen seen wax yépp nag ay xadis yu wër la li ñu nar a jàngat bu ràggat du ci rotu ci bu doyadi itam rotu ci ala xaddi al imaamu al albani rahmatullahi aleyh wa mbokk yi ñuy déglu gannaaw bu ñu tuddee yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam di leen nuyoo nuyoob jullit muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi jamian di nuyu góor ñi jigéen ñi fi teew xarit yi euh, man ak ñi ma àndal fii ci taabal ji xam naa sax bariwul lu mu xam suñu ñëw yaatuwut mën naa am sax yelloowu na mën a mën a traité lu toll noonu yépp wante njorti jullit ñi dafa rafet ci yéen ci nun yéen yaakaar ni daan ko mën a taxawee kon yàlla bu yàlla euh, neenal seen njort maa ngi leen di sant di ñaan yàlla taala mu nangul ñu nangul leen jëf ju réy nga xam ne mooy dajale ay jullit ñuy nafar suñu diine ah, te mu aju ci julli ñu koy defee ci bërëbu jullikaay muy néegu yàlla ah, thème bi nag mbokk yi lu yaatu la waaye lu yitteel la moo tax may yaakaar ci nit ñi rekk rafet ak déglu bët ak ay xol yoo xam ne yu fiix la ci leneen ak ay na joo xam ne ay nay nar a jëriñu la ci waxtaan wi amal na yàlla may nu lool nekkuma nag ku ñuy war a mën a tuddee alim waaye kuy jéem la jéem a nettali lenn lu rot na ci waxu yàlla ak ab yónnintaam ak lu rot ci waxi kibaarul ulama Eh, mbokk yi julli baatab julli ay maanaa yu bari la am maanaa ay sens yu bari la am ci niñ koy firee julli la tubaab yi tuddee prière eh, dana firi ay firi yoo xam ne yu bari la am na julli goo xam ne ñaan lay tekki loolu rot na ci alquran luy wane ne julli foofu baatab julli ñaan lay teg ci yàlla di wax naan wa salli alayhim inna la sakanun lahum wallahu samiun alim ci tawba cent trois foofu xam nga julli la mu fay tekki mooy ak ñaan ndax ne na yonent bi bu gaa ñi joxe seen azaka bu ñu joxe seen alal ci yàlla na nga leen ñaan kon julli dana am fu muy firi yërmande loola rot na ci alquran fii alquran yàlla di wax naan walladi yusalli aleykum yusalli aleykum kooku yërmande la kooku rot na ci laxzaab aaya 43 julli léeg-léeg mu firi ak ñaan ñaanal nit ci xéewal loola it rot na ci alquran fii yàlla di wax naan inna wa malaikatahu yusalluuna ala annabi mooy ñu koy ñaanal xéewal kooku ci laxzaab la aaya soixante cinquante six euh, julli léeg-léeg mu tekki ak jaamu yàlla loola rot na ci alquran fii yàlla naan xafizu ala salawaati wa salaat al wusta kooku boo ko toppee foofu julli googu qurba la maanaam jaamu yàlla lay tekki wa ala kulli xaal yitteel gi nga xam ne julli yitteel na ko euh, moo tax rot na baatab julli ci biir téereb yàlla bi lu mat soixante-huit fois juróom-benn fukk ak juróom-ñetti yoon boo seetee ci suratul baqara booba ngay dem ci suuf fi ko yàlla tudd bari na ci bàqara yàlla wax na ci alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaa foofu la ko tàmbalee di tudd julli bee téere bi di bëgg a jeex ba ci lam yekku ni ba mu naan lahu diina xunafaa wa yuqimuuna salaa kon nga xam ne julli lu yitteel la yitteel ga mu yitteel itam moo tax nag yàlla di ko baamtu ndax yàlla xam nga moom du def ci hasard du làmbatu lu mu def rekk am na lu tax Euh, bu ma waxee nag ne baatab salaa muy julli yàlla tudd na ko ci alquran yoon yooyu loola mooy euh, baatab salaa ni tëddee waaye bu fekkee ne bu ñu conjugué verbe prière bu ñu tasrifee fi'lu sala euh, ay mushtaqaatam ak yi ca xaree day ëpp loolu ndax baatab salaa nga xam ne yàlla da ko conjugué ci jamono ju passé loola rod na ci alquran ñetti yoon tusalli nga xam ne mustaqbal la donte mudaareo la rot na benn yoon ci alquran baatab yusallu rot na ci alquran ñaari yoon moom dañ ko conjugué ci jamono ju wéy baatab yusalli mën naa nekk mustaqbal muy présent root na ñaari yoon baatab salli muy impératif nga xam ne filul amri la root na ñaari yoon ci alquran muy waxee kenn rek ne ko jullil waaye baatab sallu impératif boo xam ne ñu bari lay digal root na ci alquran benn yoon baatab salaatak nga xam ne léegi lisim la rot na ci alquran ñetti yoon baatab salaatuhu moom it lisim la rot na benn yoon amma salaatahum salaatihim salaatuhum juróom benn yoon la ci alquran salaati yi nga xam ne yow mi wax naan sama julli benn yoon la jaar ci téere bi baatab salawaat nga xam ne mooy euh, plurielu salaatu ana ay julli ñeenti yoon la waaye fi mu ko defee te pluriel te wéet ko nag ci damir joo xam ne damiru xaayib la muy jamu muy salawaatihim kooku benn yoon la ci téere bi fi mu ko conjugué nag def ko muy sifa muy adjectif qualificatif muy qualifié ña ko doon def ni ci bi mu ne almusalliin loolu ñetti yoon la fi mu ko conjugué nag indi musalan nga xam ne léegi masdar mimi la day jàpp béréb ba ñuy jullee loola benn yoon la ci biir téere bi mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi kon nekkul hasard yàlla jël baatu julli répété ko takraar ko baamtu ko ci biir téere bi yoon yi yépp kon bu fekkee nekkul hasard war nga xam ne làmbatuwul dafa bëgg ñu xam yitteel gi nga xam ne julli yitteel na ko ci lislaam loolu moo tax ñu koy demandé di ko takraar fu ne ñu di ko fa wax waaye yonent bi alayhi salaatu li mu fi nekk yépp daanaka mosu ca yokkat daf doon baamtu rek di waxaat julli di ko waxaat di ko waxaat bee dem ci rafiqul ala kon nun itam suñ ko baamtuwaatee ci bërëb yu bari it ndaxam du soof ci làmm yi koy tudd nopp yi koy déggit duñ ko yàbbi ndax dafa yitteel bëgg na itam ñu di ko def moom julli ci ay waxtoom mu ànd ak chartaam ya te mu mat kon mbokk yi lan moo di julli gi nu bëgg waxtaanee tey julli gi ñu bëgg waxtaanee tey ak jaamu yàlla la ak jaamu yàlla la goo xam ne mën naa indi jege yàlla duhul ne day indi yàlla jege ñaar kon képp kuy julli na bàyyi xel ne dafay diyaale ak yàlla eh, boo amee voyance ak chef de l'état ah, sa koñ waxande loo ca dencoon daa ko sol loo amoon ci lu xeeñ daa ko laal noo ma bëggoon a téye làmmiñ ba doo bari wax daa ko def noom noo loo amoon ci teey daa ko yóbbaale julli nag moom déyaaleeg ci bind chef de yi la te bind yonent yi ak mi def yépp kon nag war na kii julli comme day am wajans ak yàlla mu laabal xolam ci lépp loo xam ne xeet la ci bokkaale muy sàkkal yàlla moroom mu jéem a teewlu ci waxtu muy julli péyeb yàlla bi tabaraka wa su jullee noona su boobaa la julleem googu di nekk kiiraay gu ko yiir di ko tere mu duggati ci xeeti mooy yàlla yi wala boog yi koy nar a alal ëllëg julli googu nag mbokk yi dafa am ruux lu koy tax a dund du mën a taxaw lu mooy ruuxum googu lay am ruuxu julli nag mbokk yi ñuy déglu mooy toroxlul yàlla ak mokka mokkalu fa kanamam julli bu amee bu àndut ak toroxlul yàlla ak mokk mokkaloog jox yàlla sa bopp loola day mel ni yaram wu amul ak ruuxu kooka xam nga du taxaw du dund eh, bokk na ci lii tax julli yi teel moo di ne julli mooy kenul diine diine du mën a taxaw lu may mu am kenn amul benn tabax buy taxaw taxaw ba baax lu may mu am lu ko yenu diine itam du taxaw lu may mu am kenn te kenoom moo di julli wax jooju ki yón ki yàlla yónni woon ci nun sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxal boppam moo ne asalaatu imaadu diin man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad taraka diin kooku màkka nee na julli daal mooy kennul diine ku ko taxawal taxawal nga diine ji waaye ku ko bàyyi bàyyi nga diine ak li yonent bi wax nag ni wa ju'ilat qurratu ayni fi sala man dey xam naa ku nekk am na luy seddal xolam wolof may wax seddal xol waaye arab seddal bët lay wax ndax bët mooy xool mbir ma neex ko mu sedd yonent bi nee na man nag liy seral sama xol daal mooy julli rek daana def sax bu ñu amee ay naqar ak i coono mu daal di ne bilaal arix na bi sala bilaal ñëwal nodd nga noppal ñu ci julli ndax booy julli génn nga ci yeneen yépp soobu nga ci yàlla nga noppalu ci yépp na ngi dut yàlla mbokk yi ñuy déglu euh, képp koo xam ne yaa ngi julli nga matal rukuwa bul def cup coppet nga matal sujjóot bul ne tucc tucc ni gara ganaar guy cof mu ànd ak chartam yi ñu xam te daan ci dikk muy laab ci xadas laab ci xabas sutural saawura jublu xibla kooka jullee noona yàlla dël na ko yàlla dig na ko waaye dël na ko ak texe ëllëg texe nag mooy duggaal jànn rek ak mucc ci safara te loola noonu la ko yàlla waxee qad aflaha al mu'minuun alladina hum fi salaatihim xaashiuun jullit ña texe nañ mooy ñi nga xam ne suñuy julli dañuy toroxlu ci julli ga bokk yi bokk na ci am solo walla yitteel mooy importance bi julli am moo di ne julli dana jëmbat gëm yàlla ci xolu koy julli ka dana ko defee tam ci xalaatam dana ko def ci ay gis-gisam dana dem bee imaan muy gëm yàlla ci jullikat bi day mujj nekk benn kattan bu yëngatu bu am effet ci dundam yépp loola dana jàjja dana jàjja mooy wàññi bakkanam ci def aw ñaawteef loola dana jubal bakkanitam itam ca la mu doon def saxal ko ca dana fexe itam ba nit ki bàyyi yu ñu bañ ya ak yu ñu xaraamal ya kon loolu julli effet la muy ay jeexit yu muy def ci bakkanam aji julli ja waaye importance su julli yépp mooy mu fàttali la yàlla ndem yow sa degré mu ngi yem ci fàttali yàlla julli na la fàttalil yàlla xam nga yàlla euh, mu ngeeg nit ñoo xam ne ñoom du ñu fàtte ndax suñu waxee yàlla suñu nëppee it yàlla la ñooñu duñ fàtte bay fàttali suñu xoolee it yàlla la li ñu gis it yàlla la ñooñu duñu fàtte bay fàttali waaye bu fekkee ñëpp àgguñu foofa nag nga jàpp ne julli dalay fàttalil yàlla dalay aar tere def lu bon ak lu ñu sib comme ni ko alquran waxee wa aqimi salaa inna salaata tanha an ilfaxshaai walmunkar wala dikrullahi akbar wallahu yaalam ma tasnaun ankabut 45 bokk na ci importance yi nga xam ni julli am na ko moo di ne julli nag du dëggu du dëggu ne julli nga lu mooy nga xam ne ruuxu ragal yàlla ànd na ca fokk ruux ak julli gi ragal yàlla lay àndal muy toroxlu dal di mën a déyaale gi yàlla déyaale goo xam ne gu mat la naka noonu mu ne loolu moo di melokaan wi ñu miin ci booru ko di toroxlul yàlla di sujjóot di toroxlul yàlla mu ne bu loolu amut duñ mën a tuddee julli googu ak julli ay yëngu-yëngu lañ koy tuddee walla ay action sportif bu àndul ak lii ay action rek la sëgg ka sigg yooyu gaa ñoo ñuy sport ak cëpp-cëpp yi danañ def sax sëgg sigg yu ko gën a metti waaye ñoom seen bos dafa dul ànd ak ay yëngu-yëngu yu àndul ak toroxlu àndul ak ragal yàlla àndul ak jàng alquran àndul ak sabbaal eh, àndul ak mokk mokkalu àndul ak teewlu ci kanam yàlla su boobaa sport lay def foog mu ànd ak yile da dégg sax kenn ku juum naan la julli baax na ndax gymnastique la dee wallahi bu fekkoo ne gymnastique moom rek la kon sportif yi am nañu yeneen xeeti gymnastique yu ëpp njëriñ ciw yaram wu bokkul ak julli julli du rek gymnastique waaye ay action la ci cër yi ju ànd ak toroxlu ci xol bi ak mokk mokklu ci cër yi ak éena ne dangay jaamu yàlla ak teewlu jëmm yàlla jë walla teewlu teewaayu yàlla ba loolu moo tax teewlu boobulee alfaqiwul maghribi di wax naan in lam takun yaraat bu fekkee gisoo yàlla it xamal ne ma ngi lay gis xam nga ku mu na yàlla ngi lay xool di la sëpp sooy julli daa ko rafetal loola mu ne na ko fas euh, suñu benn bàyyi daara daf ñu doon jàngal daf ne woon ibnu ashir li mu wax bu xasafoon liif gi rek daf ko jawaabu charte rek day dëppoog li arifoona yi di wax in lam takun tarahu soo fi nekkatul gis yàlla mu ne lif gi rek bu ko dindi woon wax ji mat aw li mu ne in lam takun taraahu indi jawaab fa innahu yaraak mënoon naa def taraak euh, taraahu rek mu nekk jawaabu charte mu xasaf lif gi comme in xarfu charte ak jësam la day jësam ñaari fiil yu njëkk ji jawaab ju mujj ji jësa mu ne taraahu rek mënoon naa nekk jawaab ji mu ne in lam takun taraahu soo fi nekkatul gis yàlla wa ala kulli xaal loolu yëpp day tekki ni julli wuute na ak gymnastique du mujarradu ay xarakaat ki action wante day ànd ak jàng sabbaal tudd yàlla màggal ko ak toroxlu loolu moo tax su loola amut ci julli gi rek julli ga day ñàkk ak ruuxoom julli nag bu ñàkkee ak ruuxoom ka koy def daanaka julliwut xam nga ko julliwut nag day nekk yéefér te yéefér nag safara rek moo koy xaar ndax kuy julli te amul ruuxu gi fa ngay julli pour ñu yëg la julli pour ñu gis la a kooku mbugal rek moo lay xaar ci julli ga moo tax alquran di wax naan euh, fa waylu lil musallin ak ñi nga xam ne alladina hum yurauun wa yamnaun al ñi nga xam ne seen ak julli amul xudu amul xushuu amul tazallul amul istixdaar amul teewlu jëmm yàlla ja amul teewlu màggaayu yàlla ga amul ak toroxlu daanaka danga bëgg ko nit ñi xam ne yaa ngi julli kooku mbugal rekk nga cee jëlee mul farit ak kibaarul arifine yi dañuy wax ni ñoom day tànn nañu màndi ci yàlla mandi ci leeru bi yàlla mandi ci seen xol di teewlu yàlla ci waxtu wu ne nga xam ne duñ julli walla buñ jullee sax julli wuñu jullee indi boppam ñu ne moom ñoom lañ loolu lañ gën a tànn ci julli koo xam ne mujaradu ko ak sujjóot ñu ne lii ko waral mooy yàlla daf ne yàlla dafa waxul ne mbugal ñeel na ña màndi ci yàlla waaye daf ne mbugal ñeel na ñey julli ña maa qaala rabbuka waylun li ula sakiru wa innama qaala waylun lil musallin bokk na ci importance bi julli am moo di ne dafay far ay bakkaar ya jiitu julli ga yonent bi moo ko wax moo ne maa min imri'in taxduru salaatu salaatu salaatu maktuba fa yuxsinu wuduaha wa xushuaha wa rukuaha illa kaanat kafaaratan lima qablaha min addunubi ma lam yaati kabiratan wa dalika dahru kullu ki yàlla yónni woon ci ñun sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn ku julli di jot julli farata nga rafetal njàppama ak toroxlu ga ak rukkooy ak sujjóot yag yëpp lu mooy boo yeggalee loola day taxaw far say bàkkaar yi jiitu woon julli ge fekk defuloo bàkkaar bu mag mu ne loolu nag du bi yonent bi nekk képp julli génn julli koo xam ne dangaa teewlu xalaatoo ci ci mbirum àddina dara lu mooy yàlla rek ak baat yi ngay wax soo paree rek julli ga ñaar rakk yooyu mën na far say bakkaar man salla rakaatayni laa yuxaddisu fihima nafsuhu gafara allahu lahu ma taqaddama min dambi mbokk yi bokk na ci am solo importance bi julli am moo di ne xeeti jàmm yàlla yépp biñ koy wàccee ci yonent bi ci kaw suuf lañ ko wàccee ba mu des julli moom day moom ñu ngi ko wàccee ci yonent bi gannaaw bu mu soree suuf si ba nekk ci kaw juróom-ñaari asamaan yi ñaareel ba xeeti jàmm yàlla yépp jibril mooy ñëw rek ne yonent bi sa borom ne nangam ak nangam moo koy indi wante julli nag moom ba muy wàcc amul intermédiaire amul interprète jibril sax fekkewu ko nag far xanaa doo fàtte ne ba muy reñaan ba mu jubloo jubloo sidratul muntaha jibril def na ko fii laa mën a yem su ma ko romboo danaa lakk ci leeri yàlla yi ni kawar di lakkee bu jege safara kon bi julli wàcc jibril fekkewu ko kon amul benn wasita amul intermédiaire jaarul ci kenn kon ñaari mbir yi boo ko takkee da nga xam ne bokk na ci li réel julli mooy yàlla rek ak ab yonentam amul intermédiaire wàccewul ci kaw suufit mu nga wàccee ci kaw asamaani juróom-ñaar bokk na ci am solo importance bi julli am moo di ne julli moom moom dong mooy jàmm yàlla gu ma sëkk waaye jaamu yàlla yi ci des yépp bu ci ne am na lu ko manki soo woree jàpp nga waaye ca lool rek nga yem génnee nga asaka sax waaye ci lool rekk nga yem ci sa waxtu waaye am na yoo dese aji julli nag bu jullee taxaw na ne jodd comme jaamu yàlla garab yi taxaw bu rukkooxee rukkoo na comme sëggu bàyyi may yépp nga yaakaar ne bàyyi may dañoo sëgg ci hasard déedéet dañuy jàmm yàlla bu sujjóotee sujjóot na comme yent yent yeeg xasaraat yeeg jaan yi waaye bu sàbbaalee sàbbaal na ni picc yi ci kaw jaww ji ak jën yi ci biir ndox mi yi nga xam ne waxtu wu ne ñu ngi sabbal yàlla ci guddi ak bëccëg kon xam nga ni julli jaamu yàlla la gumat mat sëkk yàlla mi kowee buur la bu mat ak nguuram moo tax bi nguuram matee moom yàlla bul yaakaar ne leen koy jullil da koo jëriñ dara ji doyewu ko dara bul yaakaar na nañu ñàkk julli da ko waññi dara wàññiwu ko dara mboolem ñi yàlla bind mboolem bind fii ci kaw àddina yu bokkul sax ak doomu aadama ñoom ñépp ñu ngi julil yàlla di ko sujjóotal di ko rukoal di ko sabaal xataa jant bi day day sujjóot nga yaakaar ne sog yi mu socc yow ba gisatoo ko da duwut dara dara la dafa sujjóotali yàlla yow gisatoo ko weer wi it noonu lay suuxee biddiw yi it noonu garab yi itam noonu la te lii alquran moo nu ko nettali ne xanaa danga xamul ne yàlla yéen nit jëriñu leen ko dara ci seen jaamu yàlla ndax buy rukook sujjóot ak julli ñi ci asamaan a ngi koy def ak ñi ci suuf si ak jant bi ak weer wi ak biddiw yi ak euh, doj yi yépp ñu ngi koy defal loolu ak garab yi ak daaba yi dox ci kaw suuf ak lu bari ci nit ñi xamal ne kon ñi bañ julli du dara lu mooy ñu bari ci ñoom rek mbugalam yàlla dafa yey ca ñoom te buñ julli woon mucc ca te dañoo nar a dem safara moo tax ñooñu duñ julli rek loolu rekk la xam nga yàlla ku mu doyadil kenn mënu laa fexe ba nga tedd te ku dul julli daf laa doyadal te ñooñu mu doyadal lay dugal safara te kenn du ci mën dara lii alquran moo ko nettali nanu jàng suratul xajji aya 18 yàllaa ngi naa comme ni ma ko firee léegi ci wolof ma ngi naan alam tara an allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi l ardi wa shamsu wal qamaru والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وانت وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء mbokki jullit yi bokk na ci am solo gu julli am solo moo di ne julli day dox diggante nit ak mooy yàlla ba du ko def dana ko tere mu def aw ñaaw téef ndax boo seetee waxtu ak morom ma ni mu jege ku bëggul benn raw la ca te bu ci nekk nga bëgg koo def jiital charte ya muy laab ci xadas laab ci xabas sutural sa awra jublu xibla fiixal sa xol ci lu duhut yàlla génnee ak rëy ci sa bopp teewal sa xol ci kanam borom ba ak sab xalaat nga teewal ji dëgg-dëgg jëmm yàlla jàg malakootam ba ngay jëli di xalaataale tiitaange yowmal qiyaamati di fàttaliwaale metitu dee ak xataayu xabru ngay julli sa xela nga ca munkar ak ndàkkiiru ni ñu lay laaje ci biir bàmmeel yëf yi daal kuy julli di ko defee noonu di xalaat ci yii loola du ko bàyyi mukk muy am joti dem di sàkkal ci waxtoom fu muy moye yàlla wala di def di dikkal aw ñaawteef xam nga euh, euh, mooy yàlla yu bari am jot a koy waral ku amul jot du ca nekk te ab jullit warul am jot su liggéeyut rekk war na di jaamu yàlla walla muy jàng wala muy noppaliku te xol beeg cër yi waruñoo noppaliku ci jaamu yàlla ci waxtu wu ne kon nag ndekki julli gu mat ànd ak toroxlu ak ragal yàlla fokk googu julli dina tere borom mu def aw ñaawteef bu la munta tere def aw ñaawteef rek moo dafa ne julli woo imran ibnul xuseyn dafay nettali ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ ko laajee ne ko li yàlla wax naan inna salaata tanha an ilfaxshaai walmunkar julli day tere nit ki mu def aw ñaawteef ak njombe yonent bi dafa tontu ne waaw waaw man lam tanhahu salaatu an ilfaxshaa walmunkari fala salaata lah képp koo xam ne julli mënul dox sa digganteeg def ab safaan yow sa julli ga baaxul moo tax abdullah ibnu abbas day wax ne inna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal man lam tanhaw salaatahu an alfaxshaai walmunkar lam yazid biha min allahi illa bu'dan mu ne koo xam ne sa julli du la teree def aw ñaawteef ak ab safaan kon daanaka sa julli jëlewoo ci lu mooy alku ak sori pay yàlla bi ñaari xadis yooyu ibnu xusaymata génne na ko benn bi ibnu abi xaatim moo ko solo boo delloo ci ibnu katir daa ko ca fekk julli mbokk yi ñuy déglu ponk bu yitteel ah, ponk bu yitteel ci jëfi jullit julli mooy li nga xam ne su xësee yéwén ba baax ya ca des ca xeet yi jaamu yàlla sax yàlla du ko xoolati moo tax yonent bi dañuy wax naan yàlla lu muy njëkk xisaab ci nit yowmal qiyaamati mooy ak julleem su matee mu koy def bés bu nekk ak charte ya ak ni mu ko waxee bu ñu examiner julli daal ci nit gannaaw bu mu dee mu mat dañ naa li ci sa jarul xool xam nga loolu am na solo bu fekkee seet nañ lii mu baax rek li ci sa ñu ne jaratu seet baax na waaye buñ ko seetee mu manqué wala mu yàqu ñu naa nañ seet yi ci des itam bu xasee manqué nag ñu seet yi ci des day gën a manqué rek ndax yàlla kum toppante jàpp la loolu yonent bi moo ko wax awalu maa yuxaasabu bihi almaru aw awalu maa yuxaasabu bihi alabdu yowma alqiyamati salax fa in salaxat salaxa saa'iru amali wa in fasadat fasada saa'iru amali kooku tabaraani moo ko génnee ci awsat abdullah ibnu amru dafa génnee ibnu as ci yonent bi saai sallam ji déggee ne yonent bi mës na tudd julli benn bés di wax naan ku wattu julli julli dana nekk ak leer ñeel ko julli dana nekk aw lay ñeel ko yowmal qiyaamati julli dana ko mujje di ko musal ci safara yowmal qiyaamati wante koo xam ne wattuwoo julli nag leer ga ngay dox pour jëm yoolu aljana doo ko am lay walay layal ci yàlla doo ko am mucc itam ci safara doo ko am fan kon fan lay mujj dañ koy fang boole kook firaw nag hamaan ak ubay ibnu xalaf mu dem safara wala yaadu billahi nii la ko waxee man xafasa alayha kaanat lahu nuuran wa burhanan wa najaatan yowma alqiyamati wa man lam yuxaafis alayha lam yakun lahu nuurun wala burhanun wala najaatun wa kaana yowma alqiyamati maa firawna wa hamaan wa ubay ibnu xalaf rawa ahmed ahmed moo ko génnee ci musnad ak ibnu xabbaan ca saxiix ak tabaraani yi ca awsat bokk na ci ngënee li julli ba tey li anas ibnu malik di wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku julli julli ci waxtoom te fekk jiitu na mu jàppal ko bu amul ngant mu matal taxawaay ya ak toroxlu ga ak rukkooy ak sujjóot ya suy sottal ci julli ga day génn ci bàkkaar ya weex tàll leer nañ su ko defee julli gànku naan ah wattu nga ma yàlla wattu la mu ne waaye koo xam ne balaa ngay booy julli waxtu wa du jot wala wéy na te booy julli doo jàpp ngay sëpp sa cati baaraam rek tiim këpp këppal te amuloo ngant te torox lu nekku ca julli di geesoog fu ne sa xel ma nekk ca rukkoya matul cuub coppet sujjóot ba tucc tucc la ni ganaar guy cof mu ne da ngay génn ci julli ga lëndëm kërës nag su ko defee julli ga yow waaye julli gaa nga naan yan yàlla sànk la ni nga ma sànkee su ko defee nag bu la julli gi waxee loolu ba pare yàlla day taxañ julli gi mu mel ni eh, benn benn sër malaan mu xotteeku ñu taxañ ko ba mu dëgër dóor na ko ci sa xar kanam ni la ko anas ibnu malik nettalee yonent bi ne man salla asalawaati li waqtiha wa asbaga laha wuduaha wa atama laha qiyaamaha wa xushuaha wa rukuaha wa sajadaha xarajat وهي بيضاء مصفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتمم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء شاء الله yu لفت كما يلف ثوب الخلق ثم يضرب بها وجهه ثم يضرب بها wajhuhu mu dal di dem yoonam kooku tabaraani moo ko génne mbokk yi loolu moo tax julli am na ay ngëneel yu bari bu fekkee ne yéwénal nañ ko waaye am na danger bu ci nekk ci aji julli gi bu fekkee ne doyadal na ko su fekkee ne ab jullit euh, namm naa julli nammatal sarte ya répété naa ko ay yoon luy sarti julli laab ci xadas mooy ku jàpp na jàpp laab ci xabas mooy fu nañ ko raxas walla ki sanguwul na sangu sutural sa awra mooy solal ay yére ak jublu xibla mooy jublul boor bi kaaba gi nekk ak na fekk waxtu wa jot waxtu woon bu jotul eh, daanaka font rek lay doon pour bañ nag jullit walla aji julli dugg ci tëkku bi yàlla tëkku ci mbugal ak eh, ay metit ci ki julli yàlla ngi tëkku ne mbugal ñeel na ñuy julli ña pour nag bañ dugg ci tëkku boobale war na kuy julli na fexeel xolam ci lépp lu dul yàlla ndax yàlla kat tëkku na ñuy julli seen xol di soxlawoo lu dul yàlla kooku yàlla dig ni leen waylu mbugal waylu nag am na ñu ne aw xur la ca safara am na ñu ne mooy mujaradul iqaab yépp benn la alquran a ngi naan waylun lil musallin alladina hum an salaatihim yi nga xam ne suñuy julli dañ koy sàggane mbokk yi julli war na nekk lu sell ñeel yàlla waaye na wéet ci ndéggatu julli pour ñu dégg ne yaa ngi julli walla julli pour ñu gis ne yaa ngi julli du baax bul julli mukk pour nit ñi gis ko walla boog su ma julliwut ëllëg bu ma dee dañ naan daawut julli wala nit ñi dañ naan moom du julli bul julli ngir loolu kuy julli ngir nit ñi mu ngi tolloo kuy joxe alalam ndax ñu gis ko yàlla du nangu jooje jëf loolu moo tax wax na ci alquran ne yàlla ne na koo kuy joxe alalam te nangu lu ma ko ko yàlla ne dara terewut dara taxut ma bañ koo nangu lu mooy dañ koo deful ngir man dañ caa boole keneen ku koy gis ku koy yëg loolu moo tax ma bañ waxtu woo xamee jëf ji bëgg nga keneen bokk ci kudugut yàlla xam nga keneen bokk ci sax dégg ne diw def na lu baax bonul waaye bu ko ci jublu nag bu ko def ngir loolu yow su ko defee jooje jëf moom yàlla du ko nangu gis nga mu ngi naan dara dara taxut euh, ku gëmut yàlla du def ngir yàlla du ma nangu jëfam lu mu rëy rëy xam nga ku gëmut yàlla defut ngir yàlla bu tabaxee jàkkit duñ ko fay dara su mayee téeméeri bie màkkit duñ ko fay dara ndax la yàlla njëkk wax sarta ko loolu la bañ a def mooy gëm te imaan nekku fa mooy julli te fekkee ne du julli wala muy julli julli ngistalu goo xam ne su koy def day tayal di onk di di bébbali eh, di tayal tayallu muy julli goo xam ne borom daanaka du ci tudd yàlla xanaa tuuti rek muy allah ku bari rek nga ciy dégg kooka dafay déng déngi diggante yéefar ya du julli ak jullit yi julli seen diggante la ne du koy julli ku sell ku ni jullit la waaye du hutita yéefar bu du julli bañ ne yéeféer la kon nafeq lañ koy tuddee ma ngi dénga déngi diggante ñii àndul ak ñee ndax na muy jullee baaxut àndul ak ñee ndax mu ngi sëgg kësi gi moo tax alquran ne wa ma manaahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wala yaatuuna alsalaa illa wa hum kusala yuraauuna annaas wala yadkuruna allaha illa qalila mudabdabina bayna dalik la ila haula wala ila haula surat nisa 141 mbokk yi yàgg nag yéen ci julli ak i maanaam ak i sansam ak njëriñam ak lu muy def ak lu muy jeexital wante mu ngi mel ni yaa ngi waaw nu muy jullee nag kon mbokk yi tedd yi balaa noo àgg ca nu nuy jullee kon danaa la indil xeeti julli yi yan la ndax bu ma la waxalee xeeti julli yépp dana tax suñ la waxalee nooy julli léegi dem julli ji rekk cay des nag naam julli benn ponk la bu dëgër ci ponk lislaam yi yàlla nga ko dogal teg ko xeet wi yépp ca reñaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yéeg ca kaw juróom-ñaari asamaan yi julli melut ni yeneen ponk yi julli tolluwut ne yeneen xeeti jaamu yàlla yi mu ngi ci seen kaw moo tax alquran ni wa aqimu sala mu sant ko mbooloo mi mu waxit ne wa aqimu sala tarafay nahaari wa zulufan min al leyl waxtu yaa ngoog 114 suratu Huud mu waxit ne wa aqimi sala li duluki shamsi ila gasaqi leyl 78 kooku isra la kon waxtu yi ñu julli yépp yàlla wax na ko bi mu njëkkee wax ne wa aqimi sala loola daf la ko sant rek impératif la nga nga taxaw li julli ji benn la tarafay nahaari ñaari peti bëccëg bi fa muy jeexee ak fa muy tàmbalee indil na la suba indil na la kon timis tarafay nahaar waaye wa zulufa min al-layl indil la julli gee wante bi mu ne waa aqimi sala li duluki shams bu jënt bi nekkee ci digg digg bi itam julil indil la tusubaar ak morom ma ila gasaqi balaa nga àgg ci lëndëm ga indi na la tàkkusaan kon mu ngi mel ni julli lu ñu farataal la ci xeet yépp nag mboolem xeet wu am diine jaaroon fii ci àddina rekk farataaloon nañ ci moom julli waaye anam gi ñuy jullee nag moo wuute rekk yonent yàlla Muusa ay nitam tegoon nañ leen julli daanañu julli ci seen façon loolu ñun fekkewuñ ko wante alquran mënu ko nettali rek waaw xëy naa ila muusa wa axi an tabawaa li qawmikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimu kon muusa ay santon santoon nañ leen julli sàkkal len qibla lii quatre-vingt-sept la mu ngi ci suratu yunus yénteelu ibrahima alayhi salaatu wasalaam aw xeetam da santoon nañ leen julli ak i nitam te Ibrahima soo ko xasee wax mooy abul ambiya yonent yépp mooy seen baay ñëpp ci moom lañ jóge te Ibrahima dafa toogoon bay ñaan yàlla ne yan nag ma saxal ci julli yan nag ma saxal ci julli wala yan ma boole ca ñay taxawal julli te loola. ba mu ñaanee ay ñaanam ba màggat borom romb téeméeri at ñaan doom ba yàlla may ko doomam taawam Ismaayila juddu mu ne yàlla yi ma la doon ñaan ci àddina day doom ci la bokkoon am naa ko te doom ju góor la li ma dese daal mooy may ma julli mii ma sax ci duma ko ba kon daanañ julli alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibari Ismaayil wa Isxaaq inna rabbi la muqimu salaa ay quarante la mu ngi ci Ibrahim yonteeli Isa alayhi salaatu wasalaam muy Jésus Christ Jésus daana julli euh, comme Moussa comme Ibrahim li yëpp nag alquran mu nu ko nettali kat nee na Isa daana julli daana santaane julli daana waxit ne yàlla moo ma dénk may julli comme ni ko alquran nettalee Isa dafa judd rek li mu njëkk a wax mooy jaamu yàlla la dafa mel ni yàlla xamaloon na ko ne bés dana ñëw ñu ne yow yàlla nga mu daldi ne qaala inni abdullah aataani alkitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bis salaa kooku aaya trent la mu ci suratu Maryam yonent yàlla Ismaayil doomu Ibrahim maamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da daan julli te alquran moo nu ko nettali nee na boo jàngatee ci téere bi yonent yàlla Idris daana boo jàngatee ci téere bi Idris ak Ismaayil ak ñoom ñépp daanañu julli wazkur fil kitaabi Idris innahu kaana saadiqal wa'di وكان رسولا نبيا وكان يامuru ahlahu bi sala cinquante cinq Mariam yonteeli Isxaq ak Yaaqub ak ambiyaw bani Israël ñoom ñëpp dañ daan julli ba alquran di wax ne ñoom day def nañ leen sax ñu ne ay kilifa ki njiite ki ilimaan ñoom banu Israël daanañu jubee nag sama njub man yàlla ak sama waxyu ak sama xamal man maa leen xamaloon ñu def aw yiw tey taxawal julli ñoom ambiyaw bani israil yépp nag alquran moo nu ko nettali nee na wa jaalnahum aimatan yahduuna bi amrina wa waxayna ilayhim fiala alxayrat wa iqama alsalaa 73 alambiya mbokk yi julli mii ci lislaam jullee ngoog ci téere yu jëkk yi jullee ngoog ci xeet yu wéyoon jullee ngoog ci yonent yi wéyoon waaye julli ci lislaam ay xeet la moom it ay xaaj la am na julli goo xam ne buñ koy attee dañ naan fardu ayni la faratay jëmm ju nekk la waaye am na julli goo xam ne suñ ko julli dañ naan fardu kifaaya la waaye am na julli goo xam ne suñ ko jullee dañaan sunna su dëgër la am na julli goo xam ne suñ ko jullee dañu naan gii julli de sunna la rek yem ci am na julli goo xam ne suñ ko jullee dañu naan gii day gu xemem ak defam la kon xeetu julli yaa wax naa ne am na julli goo xam ne faratale la ci ku ne kenn du ko defal kenn bu jabar ji jullee jëkkër ji julliwut du sotti du ko jëriñ dara bu jëkkër baree julli jabar du julli it du ko jëriñ dara du ko yóbbaale it fenn ku ne sag julli rek loolu mooy tekki far fardu ayni mu ngi mel ni lekk naan bu ñëpp lekkee te lekkoo yi lekkoo rek farata nag ci ulamaul usul ak manatiqa ñu jàngale mantiq muy logique ak ñi jàngale usul dañu wax ni ñoom def nañu taayin ma huwa al fardu wa ma hiya sunnatu al muakkada wa gayru al muakkada farata mooy ma yuaqabu bi tarki wa saabu bi fi'li lépp loo xam ne bu ko jaam defee ñu fay ko ca bu ko defut warees ko ca mbugal loola farata la sunna nag mooy loo xam ne soo ko defee loolu mooy fardu ayni ni ki julli juróom fardu kifaaya nag mooy loo xam ne su ko ñuy defee mu wàcce ñele ni ki am néew buñ ko suulee kenn jullewu ko dëkk bi yëppay am bakkaar kenn sangu ko dëkk bi yëppay am bakkaar bu amee ñu ko jullee nag wàcce na ñépp loolooy fardu kifaaya sunna nag mooy loo xam ne yu saabu bi fiilihi wala yuaqabu bi tarki lépp loo xam ne ku ko def ñu fay la waaye ku ko bàyyi kenn du la ci mbugal loola sunna la moom nag ñaari xaaj la dafa am bu dëgër ak bu simple bu dëgër bi nag mu ngi nee ni witre witre moom sunna mu akkada la ak ñaari julli iid tabaske korite ak buñ jàppee jant bi wala buñ jàppee weer wi ak julli baaw naan bu maral amee yooyu sunna yu dëgër am na sunna simple mooy li ñuy dawal balaa ñuy julli farata ak li ñuy teg ci julli gi gannaaw farata sunna sunanu ratiba yooyu la am na loo xam ne lu ñu xemem la ci defam rek bu ñu lu ñu xemem mooy yëg si wut ci dégere sunna kon booy boo def ko man dóob waaye moom dafa am turu benn boppam ci usul moom raxiba la tudd muy ñaari rakki fajara fajurun raxibatun moom duñ ko tuddee farata duñ ko tuddee fardu kifaaya duñ ko tuddee sunna mu akkada duñ ko tuddee sunna duñ ko tuddee mandub raxiba rekk rekk la ko sharia mën a tuddee tur woo ko tuddee wu mooy raxiba bu usul yoon yi ñëwee ne déedéet fajar du loolu raxiba la tudd raxiba nag ci usuli yoon ñu ne nañu xeet la ci mandub xam nga mandub ak sunna ak mustahab ay mutaradifaat lañ léeg-léeg ñu jël mandub tuddee ko sunna loola ulamaul usul wax mbokk yi ak lu mën a xew nag lii nuy tuddee julli juróom daal kii bu matee mu kàllaf ba ba muy faatu julli farata lay nekk ci moom féeg mu ngi koy fàttali ci am xelam rek julli farata la farata yi nag di julli bu la fàttee da koy fay ci waxtu woo ko fàttalee ci gaawtu fay googa nag lu war la bàyyi julli te tey ko nag